gërëm di leen sant euh, di jàll Sénégal yëpp Sidy Lamine Niass mi ñu ñàkk di ko jàll njabootam bi mu jur ak euh, njabootam bi mu adopté muy en général journaliste yi ñi nekk ci média yi et bëri nañ ñu ci mel ni man ñoo xam ne jaar nañ ci ay loxoom euh, tey ñi may liggéeyal yëpp xam nañ ne Sidy Lamine bokk na ci nit ñi nga xam ne xam-xamam nawloo naa ko gës ay gëstoom ay xalaatam ay démarche am dama ci inspiré wu et souvent dama koy dama koy waxtaanee dama koy wax nit la koo xam ne amoon na cofeel bu bëri ci man damay fàttali toujours ne Sud Lamine bi may def man chef de service boobu j'avais vingt trois ans bi may def directeur j'avais vingt cinq ans donc nit la ku amoon kóolute ci man ku amoon yaakaar ci man nekkoon aussi nit koo xam ne démocrate la démocrate mooy euh, mën nga bañ a bokk ak moom xel mën nga bañ a bokk ak moom xalaat du tere dina la bàyyi nga wax sa xalaat dina la tere du tere dina la bàyyi nga jëfandikoo sa xel euh, liggéeyal naa ko ay at yu bëri parce que liggéeyal naa ko juróom-ñetti at defe na euh, ba may doog a jóge école ba 2005 juróom-ñett wala juróom-ñeenti at moom laa ko liggéeyal ñu ànd fu nekk nag Sidi ci àdduna déjà ci biir Sénégal ànd Casamance temps yi Casamance di gën a compliqué am rébellion bi gën a tar e et sa ànd nañ man ak moom Casamance doon ànd Kaolack doon ànd feneen ak feneen ànd yoo xam ne euh, souvent dañ doon toog yenn saay di waxtaan euh, guddi ba fajar muy nit koo xam ne bëggoon na kuy xeltu bëggoon na kuy xalaat bëgg na kuy jëfandikoo xelam bëgg na. kuy kuy kuy kuy eh, ku bëgg ku fonk xam-xam donc Sidi Lamine eh, ñun ñëpp eh, defe naa ne dañu am dafa am wàll ci ñun c'est-à-dire man damay jàpp ne am na loo xam ne mi ngi ci Aliou Ndiaye Sidi Lamine la parce que xam nga nit boo amee 23 ans nga koy liggéeyal mu def la chef de service nga am 25 ans mu def la directeur nga am 26 ans mu jox la rajo bi gën a mag ci Sénégal ne la am demal diriger ko ça veut que nit kooku am na ci yow confiance bu mag a mag a mag man dama doon wàcc sax yenn saa yi euh, génn ci bunt bi dajeeg moom mu ne ma foo jëm da ngay ñëwi ma ne ko waaw mu ne ma kaay ma yóbbu la euh, taal otoom ma dugg ci oto bi ñu toog di waxtaan te kaay ma yóbbu la gi yëpp du woon dara lu dul bëgg waxtaan bëgg discuté bëgg échanger et euh, intellectuel de haute facture la woon daal li may wax rek Sidi mën nga d'accord ak moom mën nga bañ a d'accord ak moom. mën na laa convaincre mën na la bañ a convaincre te loolu yëpp da ko doon nangu mais lu ci mënti am ñun ñëpp li ñu jàpp xam ko mooy Sidi c'est un grand monsieur et un grand monsieur pour man mooy lan mooy nit koo xam ne da nga amal njariñ sa bopp amal njariñ sa njaboot amal njariñ sa communauté bi nga bokk amal njariñ sa réew te Sidi Lamine kenn du natable na amaloon na njariñ njabootam amaloon na njariñ Euh, millier bi mbokk muy millier des médias amaloon nañ njariñ réewam parce que am na ay avancées yu am Sénégal ci wàllu démocratie euh, diggante 1980 ba année 2000 yi loxoom mi ngi ci donc kenn mënu ko ci génnee donc franchement euh, pour ñëpp pour ñun ñëpp perte bu rëy la mbir la boo xam ne daf ñu bett comme ni ko olof di waxee lu la bett lu la bett mën la ba. Euh, mën nañu daal parce que ñun ñëpp jàppoon nañ ni euh, dañuy ànd ak moom ba ci kanam a kanam euh, ñun ñëpp dañuy fàtte ne yenn saa yu bokk dañ koy fàtte ne yàlla ay mbiram du ci tàggu kenn mais il est clair que bu ñu doon tàggu ñun dina fi bàyyi Sidy ba ci kanam ndax ni ma koy waxee rek siidi ñun suñu Sidy la xam naa ne depuis depuis très longtemps yëgoon naa bon comme yenn saa yi doon naa waxtaan ak moom xam naan daal am na am na comme feebar yi dal yenn nit ñi rek nit ñi di ko traîner feebar yi ñuy woowee maladie chronique nit ñi di ko traîner mais yooyu teru ko woon dox soxlaam teru ko woon euh, régler li muy régler diriger entreprise am et tout et tout quoi donc euh, li moom franchement euh, lu ñu bett la lu ma bett la surtout man daf ma bett parce que il est vrai que Pikini Production daf ma jëlal temps bu bëri qui fait que man sama bopp gëj naa gis gëj ko gis gëj nañ waxtaan euh, bi ñu mujj déggante ma ak moom téléphone lañ déggante donc gëj nañ gisee euh, mooy euh, ñi ngi mujj gisee ci anniversaire Walfadjri defe naa y deux ans un an ou demi ou deux ans ma dem fa ñu invité ma après bi ñu paree ñu toog ma ak moom di waxtaan et tout boobu laa fa gëj daal boobu laa gëj gis aussi mais sii di daal li ma mënti li ma mën a wax mooy. Euh, Sidi nit ku exceptionnel la woon xam nga nit ñi souvent li leen di wutale bëriwul parce que nit dafa am euh, benn benn défaut euh, système yëpp boo gisee muy marche ragal moo tax muy marche comme ni ko tubaab di waxee c'est la peur qui fait fonctionner les systèmes mais ku mel ni Sidy Lamine day déranger système yi parce que ragalul en fait boo ragalul da ngay déranger système yi moom ragalul woon moo tax mu doon déranger système yi donc ñun ñëpp. Euh, am na lu ñu jàng ci euh, ñun ñëpp ci et souvent man euh, jour sama sama doom dafa brain drain ne brain drain dañ ne sooy monter entreprise soo bëggee mu dox les dix premières personnes yi ngay recruter dañu war a compétent pourtant brain drain wax parce que pas. ma wax ne Eh, boo bëggee boo bëggee defar luy luy luy dem da ngay ñaan yàlla toujours mu boole la ak nit ñu baax en fait kàddu gu mujj gi rek ay kàddu njaal eh, njaal ay kàddu njaal jëmale ko ci njabootam tàmbali ci cheikh eh, mi nga xam ne tey peut-être mooy moo yore mooy mooy taawam bu góor war a taxaw ay ay rakkam cheikh màggee sunu kanam ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyee foofu doon ñëw ci sunu biir doon waxtaan ak ñun donc ma ko ma ko koy jaal moom di ko jaal rakam yëpp di ko jaal ay soxnaam di ko jaal mbokkam di ko jaal magam Amir euh, Ahmed Khalifa di ko jaal xalifu uh, Léona Niassène di ko jaal Sénégal yëpp et puis surtout di ko jaal monde de la presse parce que bëri na ci ñun ñoo xam ne uh, premier pas Sidi moo ko guidé eh man soo gisee sax ni may ni may manager ni may gérer am na yu bëri yoo xam ne ci siidi laa gisee euh, ci siid laa ko ma continuer di ko def ba léegi am na ñoo xam ne bu ñëwee fi Pikine sax dañuy wax nan nga mën a nekkee chef d'entreprise yore entreprise par exemple di defal say travailleur telle chose bëgguma ko tudd quoi euh, parce que pour ñoom loolu waroo ko defal say travailleur et tout man dama koy def parce que ci siidi laa ko gisee ci siid laa ko mu koy def ma jàpp ne loolu baax na ma continuer di ko def donc ñun ñëpp Euh, source d'inspiration pour nous et comme je le dis euh, à un moment ou à un autre de notre vie nous avons ak moom te Si nous boo ak nit ça veut dire que soit da ngay wuti lu gën wala peut-être da ngeen d'accord sur la manière bi vous di diriger affaire bi mais nga d'accord avec moom nga baña d'accord ak moom ñun ñëpp dañu reconnaître dañuy reconnaître ben mbir né ne euh, Lamine c'était un grand monsieur. Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.